tay ci suba dañu euh, continuer di def li nga xamné mom lañu euh, tambalé di def depuis biñu jëlé service ba biñu jëlé fonction ba légui moy dem di nemmeeku li nga xamné mom lañu dénk damay euh, notre loi fondamentale la constitution dafa garantir à tous les citoyens le droit à un environnement sain lolu moy sunu mission motax ñu wara dem saytu ji fep fo xamné japp nañ né

Euh, lépp loo xam ne euh, war nañ ko def ci en direction des populations notamment ci wàllu santé ci wàllu euh, éducation ñu ngi def ay ñu ngi ci bay ay seeni waar waaye mun nañu yokk seen loxo mun nañu gën a jàppale population yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bërëb bi nga xam ne moom la ñu usine bi deuxième point bi le respect des normes environnementales loolu aussi euh, xool nañu euh, xam nga ni dafa am ay normes yi nga définir euh, pourcentage de rejet yi nga xam admettre en termes de poussière mais li ñu wax de manière théorique wax nañu ils sont au-dessous de la norme dem nañ ci salle de contrôle bi bi nga monitorer les informations de superviser les installations on a système de monitoring donc ci le aussi euh, euh, que la norme en termes de rejet de poussière elle a été respectée Benenwa bi dem nañu euh, sax ci fi nga carrière bi gis également

Euh, fonds bobu waxtaan naa ci ak sama collègue moy euh, ministre des mines et de la géologie euh, nous avons les mêmes points de vue sur la question ñu ngi liggéey pour finaliser li nga xamné moy l'arrêté interministériel bi nga xamné daf ñuy permettre ñu gérer fonds bobu dafa am benn fonds bu war ñi nga xamné ñom ñoy jëfëndiko ñoy ñooy jëfëndiko yi benn montant bu ñuy verser pour que ñu mun réhabiliter après que nous paree seen donc loolu aussi ñu ngi ciy liggéey bu baax parce que gis nañ ne euh, parfois nit ñi dañuy ñëw ubbi ay carrière def seen liggéey nous ñu paree li nga xam ne moomoo moom la ñu waroo moom lañ leen waxoon ci njëlbeen bi ñuy def étude d'impact environnemental et social bi ñu définir ben ce qu'on appelle le PGS le plan de gestion environnementale et sociale duñ ci bay noir. Donc le montant.

Il y ay réew yo xamné déchets yoyu dañ leen di incinérer ci ay four à haute température gis naa léegi euh, four bi température bi mëna dem jusqu'à 1200 degrés donc normalement euh, war nañu mëna incinérer euh, genre produit yoyu je suis heureux de constater que nous ngi gën de ñu ngi continuer di procédure bi ak processus bi ak euh, le directeur général des ICS d'ailleurs recevoir naa ko démb say euh, waxtaan nañ ci lu mel noonu loolu moo tax bi ma ñëwee fii euh, gën leen a ci loolu pour que ñu gën a accélérer li nga xam la cadence pour que ñu mun régler de manière définitive li nga xam ne moom mooy moom mooy problème boobu. xam nga sama njëlbeenu wax dama ne constitution bi moom moo garantir citoyens yi le droit à un environnement sain loolu mooy sunu mission état bi du bàyyi mukk. Euh, euh, citoyens yi ñu tumuranke ci walu boobu euh amna fi nga wax légui euh, étude d'impact environnemental et social bi ñu engagé xam nga étude d'impact environnemental et social lu muy lu koy wundu euh ñi nga xam ñom ñoy autorité euh comment dirais-je territoriales yi dañuy wo population yi wo ñëpp toog ak ñom nee leen projet bi di amna lo loo ci xalat ñoom ñu joxé seen xalaat ñu ne buñu défé li buñu défé li buñu défé li ñu nañ ci dem parce que aussi il faut nous comprendre que euh, autant bien sûr l'État doit sauvegarder doit protéger euh, ce droit euh, à l'environnement à l'environnement sain mais également dañu nous développer le tissu économique le tissu industriel moo tax partie prenante yi dinañ tok waxtaan nous a waxtaan naka lañuy fexé nous ñu satisfaire nos besoins, nos seen crainte bu qu'on est satisfaire nos seen besoins, ak nos craintes, je pense que aussi euh, ñi nga besoin de pour développer l'économie économie Sénégal war nañ ko war continuer à faire. Lolo loolu awma ci benn en tout cas euh, le président directeur général est dans toutes les dispositions euh, ginnaaw bu maire bi defee seede bi mu def dinañ yo a les population en termes d'emploi sur le plan social euh, santé euh, éducation pour que nous puissions ñu ce ci seen bopp xam usine bi nga implanté ci localité amal na leen njëriñ de déclassification c'est une prérogative exclusive du chef de l'État en fonction des intérêts du Sénégal naka gérer li nga xam déclassification bi euh, ñu euh, incha allah procédure bi ñu ngi koy déroulé té ak xam ni inshallah fi ñuy jéxalé moy de ñëpp dañuy déggo parce que euh, li nga xamné mom lañu waja ñu waaj def euh, intérêt sénégalais yi la intérêt ñëpp la donc bu intérêt sénégal taxawé intérêt ñëpp taxaw ñun ñëpp dañ ci wara a jublu mais sét nak lañ koy fexé nañuy fexé ba waxtaan ba ku nekk baña gañu lolu moy objectif bi et état bi lolu moy liggéeyam au quotidien